salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyuwaat leen beneen yoon ñu ñëwaat ci néeg beneen soxna baay ñu naan ko maam Mëjjam Fall moom mi ngi jóge woon dëkk bu ñu naan Mauritanie. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant maa ngi leen di gërëm itam di gërëm doomi pays pays bi Cheikh Cissé ak Cheikh Ibrahima Niass doomi Ibrahima Niass dégg nga maa ngi leen di nuyu lu bari maa ngi leen di sant itam lu bari baay nit ku yaatu la woon baay xalalam boolewu ko a kenn day joxe ci ndey jooram te càmmoñam du ko yëg loolu mooy jukkoom baay ku tabe la baay ku mën njaboot la baay baay ku bari yërmande bay dépassam am euh, euh, euh, apput apput ñun daf ñu jox dépasse kër gi ba pare mu jox ñu ci beneen dépasse bu bokkul ak bu kër gi ku baax la ci njaboot ku am yërmande nit ku baax la nit ku am jàmm ak ñëpp nit ku bëgg ñépp amul digaloo ak kenn amul eh, leneen ak kenn nit ku baax la loolu lañ xam ci baay baay dépassam àppwut moo ñeme dépasse dépasse doomam yi jigéen yi daf leen di jox dépasse daf leen di jox dépasse bu bokkul ak lu leen seen jëkkër yi di jox loolu mooy jukkoom ku ku ku ku ku ku ku bëgg àddina la ku bëgg boppam la ku am yërmande la ku laa la loolu mooy jukkoo Alaaji Ibrahima Ñas alaaji Ibrahima Niass ñun luñ ko xamal mënuñ ko wax ndax dafa bëri nit ku baax la nit ku tabe la nit ku bëgg nit ñi la nit ku xam yërmande la nit koo xam ni nit mënta xam mënta wax la la mel meloom bi kenn mënu ko melal kenn mënu ko melal ndax jukko ju rafet ju yàlla jox ak mbaax bu ko yàlla jox ak taar bu ko yàlla jox ak yërmande bu ko yàlla jox loolu la alaaji Ibrahima mel baay lu nit di wax moom dana bëri ndax baay dafa am yërmande ci réewam dafa bëgg réewam ba bu ñu wuti indépendance moom wax na ak de Gaulle général de wax na ak moom wax na ak Lamine Koura Gueye wax na ak moom ci affaire euh, indépendance wax na ak moom ci ngir loolu pour mu may Sénégal bo bopp loolu kenn du ko wax nit ñaa ngi koy xamba ba parité di ko noppee moom nag dafa am yërmande amul kañaan ci kenn ku am yërmande la ku bëri yërmande la ku yaatu la ku tabe am na benn at <coughs> ay taaliba ñu indi seen mbay ñu def mu def ko ci ron gagannaay moom du denc de moom dencul dara te ñàkkul dara duy denc ndencam day ron nga gannaay gi rek bam mu ñëwee ñu ne ko xay sëriñ bi gisul luñ ko jox bàyyi day gisul luñ ko jox ma ne gis naa ko xam naa lu mu toll mu ekkati ko jox ay yu doon e, e, e, ñaan mu may leen ko ñu ne bàyyi bàyyi lu tax muy def lii ndax lii daf ko gisut خمي الدرام الدرم أكفك عملوا خم خمي الدرام أك مليون خمي لين دفع تبعت من جوخي تخم لم كوي دوخي تبو لا جوخي تاي موي لا بو ليغي نغا دلوس لول لاي واخ باي نيت كو باخ لا باي سيرن بو ماغ لا gis nañ luñ ko lu lu luñ ko dul nommee ko dul nomm lu tax ñu nomm ko njëriñ la tax ak tabeem ak mbaaxam moo tax ñu nomm ko te moom bu toogee fii tey nga toog fii doo néeg a dem ndax am na lu lay waxal ni toogal xoo di ko xool rek dafa am xubóol moom la ko yàlla may loolu kenn mënu ci dara dafa am lu ne ci moom loo xam ni ku toog fii ku ko seesi doon ni gëdëm da ngay toog rek di ko nii nii di ko xoole rek ba dañ la wax ne ñëwal ñu dem ndax jikkoom ak meloom loolu la ko yàlla bindee ñun dinañ ko nomm waaye ñeneen itam dinañ ko nomm ñi muy jëriñ dafa am njëriñ dafa bëri njëriñ ñu koy nomm di ko ràng ñoo ko ñoo koy gën a nomm ci ñun ñun ñum dëkkat ñooñu ñoo koy gën a nomm ci ñum dëkkat nit ku baax bëgg réewam fu mu dem réewam la fay waxtaane lu jëriñu réewam moom la fay waxtaane fu mu dem mu xërtal yeneen réew te ñu defal réewam ndax lu ndax bëgg réewam noonu la Baye mel Baye dafa bëgg Sénégal bëggamewu ko yàlla Jamal Abdou Nasser xam ngeen Jamal Abdou Nasser dëgg ngeen ko tëdd hmm? daf ko wax ni na nga na ñëw fii ci ñun ndax yow Sénégal nga juddu ci nga yaru na nga ñëw yow suñ bàyyi nga na nga ñëw ci ñun nga nekk ak ñun mën a leen lu may def sumay doom lu may defar suma jumaa lu ma koy def mu ne ko jumaa ji bàyyi ko ak jullit yi doom yi indi leen waxul jabar de tuddul jabar de doomam ak jumaam la tudd yàlla néegu yàlla moom la tudd te alaaji ibrahima dafa bugg yàlla bugg yonentam bi dafa jeex ci yonent nag ba ba amul amul amul digaloo ak moom ndax bugg daf ko bëgg mbugal bu ëpp ci moom ndax mooy lekkam mu ni mooy naanam mooy wéttalam mooy léppam yonent bi sallallahu alayhi wa waaw loolu la Baay wax taxaw ci dosul daal la sax tànk neen lay waaxu dem ci mbedd mi kontaan bëgg ñun ñu di ko nax ñu ne ko day am na ay yére yoo xam ni dañ koy génne ci eh, juddu yu nant bi ku ko am ñu saabal ko ay fen dégg nga ñuy waxal ko loolu mu daal di mu ne jar ndax yonent bëgg yonent bu mu bëgg yonent rek a tax waaw dañ koy nax ci moom suñ ko naxee ci moom rek ñu jot ko ñu daal di jox xaalis benn bokk néegam bu ñu wax mama caam mu ñëw di ñu seddale xaalis lu ñu xotte yére yi ñu wax loolu kooku moo bëgg yonent moo ko bëgg ba jeexal mbuggal ci moom am na benn at daf ko dun ziyaara moy at bu mu tàggatu ak moom daf ko dun ziyaara bu mu ko dul siyaara ba pare muy jooy ñu ko xale yi mu àndat sëtam ak doomam yi mu mooy leen ñu ko bàyyi lan la bàyyi lan la lu la dal lu lay métti lii laa laa bàyyi laa ma leen du dara dama xam ni maa ngi dem ci yonent maa ngi tàggu ak yonent te dutuma fi dellu si lii leen wax de تلون وخري بأمنا موم لون وخرك داي أم خنا لون وخد لون لكو يلا بنده تي أصل دفا بوك يونن تبالون وخ يونن تتخمو ديكو وخ يونن تموي لبم لولو موي باي نيس gumba abdullahi bukaray sa ci boolaamin sa coro samba jay la ñes dawa sig leen sëriñ la si kër gi am si sa soow laf si kër gi am si sa soow ba bari njëriñ ni ki arin te sedd kër ni ki moo bari njëriñ ni arin te sedd kër ni ki man su ma waxul si baay rek su ma si baay rek nit ndax lu nekk rek am na lu tax mu am dañ na lëg bu lekkee xëlëm na ko gërëmee coy waaye na gërëm yàlla mi nga xam ne moo waddal xaloom boobu ba tax mu mu lekk ko man dey suma yaay man xadi baay xadi baay lañ may wax bàyyi ma tudd reyal ma xar jurul ma si saayir de jurul ma si baatin waaye moom ma jur nag si saayir ndax suma yaay dafa defoon rek bu amee suma papa doom ju jigéen rek doom jooja gaañu keroog ba mu amee doom ñu war a ngénte jaboot dofu la suma yaay dal di daw ñëw si baay ne ko baay salaamaaleykum mu dal di ñëw mu ne ka waa doom ji nga yore nag mu ne ko doom ji de ñes yaay baayam baay xam na ne dafa jaxasoo mu ne ko wax nga dëgg nu mu tudd mu ne ko amagul tur de yow laa bëgg nga utal ko tuur ndax man dama tuddee kumba mu dem ma tuddee penda mu dem ma tuddee maram mu dem ma ñëw nag yow mi xam turam te ñu ne mooy dem di ñëw rek nga utal ko tur bàyyi ne ko toogal danaa ko utal tur te danaa ngénte suma doom mu dal di toog bàyyi toog ba mu yàgg rek benn aw sa indi mu rëy ñëw jox bàyyi fëgg bàyyi na ubbil leen ko mu ñëw indi xar moo xam ne ñaari nit a ko jàpp mu ne xar mi bàyyi dama ko indi àddee pour nga ñaanal ma bàyyi jóg boppam rendeel xar mi ba rendeel boppam xar moomu ne doom ji tuddee naa ka xadi bàyyi waaye dippee naa ko ndax xadi faati ñees mais nga xam ne sëriñam entrepreneur la mhm. waaw xadi Faty Niass moom lañ ma dippee waaye nee na xadi jatu mu mag maa mag la ma tuddee dégg nga ah yàlla def na mu teg si kuñ naan Baye Amadou teg si Aminatu teg si Fatou Mata doog a caatlu man maa ngi sant Baye bu baax ndax gannaaw kenn rek Baye la man suma lépp Baye la su may mbubb ak su may doxin yaa ma jam mii nag dafa yàgg suma yaay bëgg sama yaay xaritoog suma yaay suma yaay gaañu moom moom moom Aysatu soxna mu suukoon suma yaay ku ne xam na ka maa ngi sant baay bu baax maa ngi sant baay bu baax maa ngi sant baay bu baax a baax a baax a baax allahuma sali ala sayyidina muhammadi ilfaatihi lima xuliqa wal xaatimi wal haadi illa siraatika almustaqim ala alihi ma xadaarika su ma yaram bi nag dafa tàng maa ngi leen di jéggalu bu baax it nag maa ngi leen di yëggu ndax bi may wax rek tayu ma ko su ma lépp ay yëngu bu ñu tuddee baay rek suma ma yëpp ay yëngu jërë ngeen jëf mm-hmm. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب